لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة عقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة عقبة عقبة فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المصحمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم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 ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu man la yaral wasaawisa wa nahwaha min ash-shubuhat ki nga xamante ne gisul li xam ne moom mooy mooy wasaawis mooy jax-jaxali ak wa nahwaha ak yu ne ci ñoom moom gisu leen te jàppewu leen min ash-shubuhat nañ kon ci suñu jotaay bi weesu li ci aju woon ci xadiisu sayyidina abdullahi ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma من أن سكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل يجد في الصلاة شيئا من أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم واجا واجا وجد من ذي أم لم يدك كبير جلجي من ذي دك درج جلجي من أيقطع الصلاة نحن ذي دك دك جلجي بقي النبي صلى الله عليه وسلم نلا حتى سمع صوتا أو حتى يسمع صوتا أو يجد روح ريحا بيت بيت mbete xanaa mu daal di dégg kàddu wala boog euh, mu daal am mu am xet bu koy wan ne njàppam toj na euh, loolu mu am ci beneen riwaaya mu ne laa wudu'a illa fi ma wajadta riha aw sami'ta sawta mu ne amul benn njàpp ju lay war lulul ci li nga xamante ne amul njàpp guy war lulul ci li nga xamante ne moom nga daj ak xet wala boog nga dégg ci ak kàddu نكون أنا بسورة نك حديث صحن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا من دنيا النبي صلى الله عليه وسلم دنك وحنك يوم دول يا الله صلى الله عليه وسلم دفع أم أي نت نو قمن تنبني دكين دول تقامن يدخل الله لولا تدور نجتور يا الله ولا ده ñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne sammullaha alayhi wa kulu tudd leen ci tur yàlla te ngeen lekk ko gisoon nañ ne dégg-dégg maanaam loolu li muy tekki moom mooy ne daf fekk ne ñooñu comme dañoo doog a génn ci ci kéefél ñuy doog a dugg ci lislaam te jox nañ leen ndawal li te dem nan maanaam bu boobaa xamuñu ndax ñoom tuddoon nañ ci tur yàlla wala maanaam te loolu moo tax imam al-Bukhari indi ko ci waswaas yi maanaam jax-jaxal yi ngir ne loolu du lënt-lënt maanaam jax-jaxal la ndax nit ki jullit la rendi na te moom rendi gi muy rendi da ciy tudd turu yàlla yow nga nekk fii di laaj ndax tudd na yàlla waaw wala déet maanaam masala bi masala boobu la waaye du masala dem jënd ji rek sa sa sa ndawal boo xamante ne leer na leen tudd ni yàlla wala boo ko koy def li ëpp ci sa ni noot ci mooy di ci tudd turu yàlla maanaam du loolu loolu moom du masala bi masala bi kon li ñu wax lii la moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci buntu manam di wone ni jax-jaxal rek du ci dara nekkul ne lu leunt la waye jax-jaxal la motax bokul bokkul ci subuhaat yi nga xamne dañu leunt bañ war ko bayyi ñu gisoon nañ tamit babu qawlillahi ta'ala wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha ne buntu bi nga xamne moy wax ne wax bur yalla subhanahu wa ta'ala bi mu ne wa idha ra'aw sunu gisee tijaratan aw yaxantu aw lahwan wala bok am fo ak ñom day infaddu dañuy daal di mam mu daw tasaaro ilayha jëm ci ñu gisoon ci hadith sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mun ne baynama nahnu nusalli ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam illa 12 عشر fa nazalat wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha mu ne bi xamante ne moom la ñu nekk ñun di julli ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko xamee woon tamit bisu àjjuma lay moo tax muy wax rek mu daal di jékki mu am aw jëgg woo xamante ne dafa jógee saam ñëw waaye daal di indaale ñam wu bari bu boobaa nit ñi nag daal di wëlbati ko daw dem fa ba nga xamante ne kenn desatu woon ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci julli googa maanaam mooy xutba ga lu dul fukki nit ak ñaar ci ay góor nee na moo tax mu daal di wàcc nag borom bi subhaanahu wa taala wàcce aaya boobu ne ñoom daal suñu gisee ak yaxantu wala ak mbóosóor rek dañu daal di maam mu daal di daal daal di daal di daw dem ca euh, euh, gisoon nañ tamit baabu man lam yu baali min haythu kasabal maal buntu ki nga xamante ne moy babu buntu man ka nga xamne lam yu bari du bàyyi xel min xaytu dana fan la kasabal maala lay fago alal ni gisoon ci hadith sayidna abu hurayra radiyallahu taala anhu mu jóge ci yalan tabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun yati ala an-nas zamanun la yubali al maru ma akhadha minhu amina al-halal am min al-haram mun jamono ngi dik ci dina dik ci nit ñi jamono jo xamantene ne nit ñi duñu manam xel manam cham ci du bayyi xel ndax manam ci lu haram ci lu dagal manam ci lan lay jëlee alal ndax ci lu dagal lay doon wala bok ci lu haram te jamono joju ko niñ ko gisee won mu melni ni yegg nañ ci wala bok bu fekkente ne wul itam lu ci bare bare lu bare bari dugg nañ ci legi nak imam al Bukhari, rahimahullahu taala dan ne tijarati fil barri wa qawlihi rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah mu ne baabul tijaara buntu yaxantu fil barri maanaam fil barri la maanaam mooy ci euh, euh, ci jéeri maanaam mooy di bay di di di yaxantu ci jéeri ji am na ñu ci ay riwaayaat yoo xam ne fil bazz lañu wax maanaam moom mooy di bay maanaam ci marchandise maanaam di jaay ay marchandise waaye loolu ci du ci bi nga xam ne moom la indi wala boog ci euh, li nga xamante ne moom mooy xadis yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk amul benn boo xamante ne daf koy junj naka noonu tamit li nga xamante ne moom moo aju itam ci euh, euh, naka naka tamit li nga xamante ne moom mooy buntu bi di ñëw ci kanam moom mooy buntu bi nga xam ne moom mooy wax baabul xuruuj fi tijaar baabul wala boog baabul tijaar fil baxre maanaam buntu bi wax ci maanaam buntu bi tegu ci ñaareelu buntu ci ci kanam nga xamne day wax ci euh, yaxantu ci jeri ci géej lolu kon day daldi deugural li nga xamantene mom moy ne kon euh, li tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nasa buntu bi moy njaa yaxantu ci jeri ji muy barr te lolu mom moy li nga xamantene mom mo ñew ci riwaya yi nga xamne ñoom ñoy ñi gëna bari ci ñi to sa ñi ñi nga xamne ñoom ñoo toxal euh, al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Euh, mu ne kon buntu bi nga xamante ne moom mooy at-tijaara kon fil barri ci jéeri ji wa qawlihi ak wax ji buur yàlla subhaanahu wa ta'ala wax ne rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah mu ne ay góor euh, muy euh, muy rijalun ay góor yoo xamante ne laa yulhihim du leen maanaam du leen maanaam distraire du leen du leen euh, euh, soxlawoo tijaaratan ak yaxantu wala euh, bay'an wala boog ak njaay ak jënd an zikrillah ci di tudd yàlla fekk nag aaya boobu borom bi subhaanahu wa ta'ala mi ngi koy wax ginnaaw bi nga xamante ne ci la wax aaya bi nga xamante ne moom mooy aayatu nuur bi muy wax allahu nuuru samawati wal ard bu mag boobu nga xamante ne borom bi subhaanahu wa daf mi la leer leer bi nga xamante ne moom mooy bi mu bindee asamaan ak suuf si amale ko ci cosaan ak li nga xamante ne moom mooy euh, li ci aju ak leer bi nga xam ne moom moo nekk ci dënnu yenente bi wala leeru yenente bi sallallahu alayhi ak leeru gëm gi nga xamante ne moom moo nekk ci dënnu nit ki nga xamante ne maanaam jullit la wala du nit ku gëm yàlla euh, borom bi subhaanahu wa taala gannaaw loolu mu ne fii bu أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار برم سبحانه وتعالى dal ni fi bu yuutin ci ay néeg muy néeg yi nga xamantene ne muy néeg yu mag yooyu di néegu yàlla yi di jumaa yeeg jàkka yi azina allahu buur yàlla subhanahu wa taala joxe na ndigal antur fa ci ñu yëkkati ko maanaam kon ñu yëkkati buntu yi de néeg yi ñu teg ko maanaam ñu taxawal ko waaye nag wa yuzkaru fi hasmu ñu fay tudd turam moom buur yàlla subhanahu wa taala di fa tudd allah allah wala boog ñu fay tudd la ilaha illa allah wala boog yeneen xeetu tur yi wala boog ñu koy tudd di ko di ko di ko di ko di julli ngir ne zikrullahi comme fi muy waxee wala zikrullahi akbar ak wa aqimi salata li zikri yooyu yëpp di taxawal maanaam nga xamante ne kon julli moom mooy li nga xam ne moom mooy li fa jiitu waaye tamit lépp loo xamante ne tudd tudd yàlla la wala boog di fa jàngale alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la bokk mu ne waaye nag yu sabbihu dana nay nay nay sabbal daiman lahu ñeel ko moom borom bi subhaanahu wa taala fiiha ci biir jumaa yooyu jàkka yooyu nañ ko fay sàbbaalal maanaam di fa tudd turam di ko fa màggal bil xuduwi wal asaali ci suba yi ngoon yi ña ko ñan ñan ñooy def lool nag mu ne rijaalul ay góor maanaam mu melala leen ne ñoom dañoo melaw melawu ngóor a maanaam mu nekk ay nit ñoo xamante ne kon euh, dañuy tegtalewul ne euh, maanaam waxul wa waxul zukuran maanaam waxul ay ay ay góor maanaam ñoo xam ne personne de sexe masculin la waxul loolu daf ni rijaalun ay góor maanaam ay maanaam góor bi nga xam ne fii moom ñëpp dañ ci mën a dugg maanaam mooy góor ak jigéen comme masalan ni nga xam ne noonu la wolof di mën a waxee góor maanaam jigéen naan ko góor góorlul naan ko wal yooyu noonu maanaam loolu moom mooy góor dëgg-dëgg loolu nag ñooñu nga xamante ne laakul yi yim du leen yitteeloo maanaam ba nga xamante ne daf leen di fàtteloo ah tijaaratun ak jaxartu wala bay on bu caaganum jaay am zikrillah ci du yàlla ci di julli ci di ci di ci di ci di tudd turu yàlla waaye mu tudd turu yàlla fii muy jàng alquran ak sunna ak li nga xam te ne moom mooy di zikkar maanaam di teg di samp ay jotaayu zikkar ci jumaa yi ci jàkka yi loolu waaye nag wa iqaamis salaati ak taxawal julli maanaam nga gis ne kon dafa tudd li nga xam ne mooy li gën a matale waaye mu tudd tamit ne ñoom fàttaliku turu yàlla ak di di fàttaliku yàlla di dellu ci yàlla daa iman ñoom day seen njaayu jënd bi ak seen yaxantu bi ak lépp loo xamante ne activité professionnelle la du leen tere mukk ñuy fàttaliku yàlla di tudd yàlla ak di dellu ci yàlla saa su nekk loolu mooy dëgg-dëggi ngóora mooy koo xamante ne day mën a boole ñaar yooyu mun ne ñooñu day wa iqaami salaat ak di taxawal julli wa itaa zakaat ak di joxe azaka maanaam faw lii yëpp amul dara lu leen koy tere maanaam euh, euh, client baa ngi nii ay millions la war a joxe léegi waaye nag julli moo jot moo tax damay dem bàyyi la fi waaw kay loolu la maanaam kooku walla euh, yu mel noonu mu ne ñooñu lu tax ñuy def loolu mu ne yaxaafuuna dañuy ragal yawman bis bi nga xam ne te taqallabu day jàllar bi ko fii ci moom alquluubu xol yi wala absaar ak gët maanaam gis-gis yi nit ki day xool maanaam xol bi di wëlbatiku naka noonu bëti yi bët yi di wëlbatiku di tourner lu tax ngir tiit maanaam bis boobu ñoom dañ koy moytandiku maanaam dañ koo bàyyi xel loolu mom moy li nga xamantene mom la borom subhanahu wa taala di wax fofu imam al Bukhari rahimahullahu taala indi aaya manam di leral ne kon jaay mu jënd mom day di am ci jiri ci ci ci jiri ji euh te itam ne borom subhanahu wa taala manam fi imam al Bukhari rahimahullahu taala day leral ne yaxaltu bi man lépp lu mu meuna indi ci koom na teggu ci ne bu mu la fatelo abadan di di di dellu ci yàlla di jaamu yàlla lépp lu la nar dox sa diggante ak yàlla bàyyi ko ko maanaam nga jël yàlla teg ko ci sa kanam ba noppi leneen li ci des nag après mu nekk loo xamante ne surprise rek lay doon mu ne wa qaala Qataada muy ibn Di'aama as bi soon nañ ko mu ne kaana nekkoon na al wala boog ah, amaan na dinañ gisaat kon ah, bu dee gisaguñ ko woon itam mu ne kaana nekkoon na alqawmu nit ñi yatabaaya'uuna dañu doon jaayante wa yatajiruuna te daan nañ yaxantu walaakinnahum waaye ñoom. isa naabahum saa yoo saa yoo xamante ne wóotu na ñoom xaqoon aq min xuquqillaahi ci aq buur yàlla yi subhaanahu wa taala lal lamtul him du leen yitteeloo mukk maanaam du leen distraire mukk tijaaratun ak du leen yëgadiloo mukk tijaaratun ak yaxantu wala bay on du caaganam njaay an zikrillahi wëllif maanaam di fàttaliku yàlla delluwaat ci aq buur yàlla boobu subhaanahu wa hatta yu adduhu mbete ñu joxe ko delloo ko ila allah dem ci bur yàlla subhanahu wa ta'ala kon lool mom moy nga xamne non lañu melol moy ne te lool mom moy sahaba yi radiyallahu ta'ala manam li day leral ay ay bi ak wax ji ci imam Qataada wax rahimahullahu ta'ala wax day leral mi nga xamne non la sahaba yi meloon radiyallahu anhum ndax gis nañu ci hadith yi wessu wala ci bunti yi wessu ne ñi nga xamne ñoy muhajiruna muhaajiruuna yi radiyallahu anhum li ëpp li nga xam ne moom lañ doon yëngatu moom mooy ci wàllum jaay jënd waaye dañ ko daan teg ci sart yii de mooy ne na lépp di delluwaat ci buur yàlla subhaanahu wa taala buntu bi imam al Bukhari rahimahullahu taala indi na ko ginnaaw bi mu indee di wax ne ñi nga xam ne ñoom du ñu bàyyi xel fan la ñu woo jëlee seen alal muy wax ne saxaaba yi de radiyallahu anhum melu ñu woon noonu te doon nañ am ay boroomi alal yu rëy maanaam naka noonu loolu moom mooy li nga xam ne mooy yooru nit lu maanaam du rek à tout prix damaa war a am alal déedéet à tout prix damaa war a am lu baax bu ma dee am lu baax ok na dagan loolu moom moo tax comme ni ñu ko waxee woon maanaam liggéey ci jëmmi boppam du jaamu yàlla maanaam liggéey ci jëmmi boppam du luñ digle liñ digle mooy wut lu dagan loolu lañ digle di dundee lu dagan dégg nga mun a bi bil isnaadil muttasil fil kitaabi ilayhi euh, haddathana abu asim te moom mooy an rahimahullahu taala abdahak ibn Makhlad ibn ad ibn Muslim ibn ad-Dahhak ash-Shaybani abu asim an-Nabil rahimahullahu taala di sëriñ imam al-Bukhari mooy sëriñam sax bi gën a mag rahimahullahu taala bokk juróom-ñeenteelu tabaqa bi gane àdduna 121e année génn àdduna 211e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekkoon tamit ci waa Basra rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta waaye imam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom ci waa asxaabu maanaam moom la nekk sëriñam ci waa asxaabu kutubu sitta imam al-Bukhari dana solo ci moom directement comme fii waaye tamit dana solo ci ku solo ci moom rahmatullahi alayhi alayhi mu ne an ibn Jurayj te moom mooy imam bu màgg boobu Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu taala di abul walid wala bokk abu xaalid nekk dàqantalam rahimahullah bokk ci juróom benneelu tabaxa bi nek waa makka gane àdduna quatre-vingtième année génn àdduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom euh, mu nekk koo xamante ne euh, moom maanaam mu nekk koo xamante ne ku ñu xamee woon la ci ci ci ci ci mbaax ak cellate nek imam manam bo xamantene ay ay waxam dañ koy bàyyi xel ci buntu fiqh waye li ëpp liñ koy bàyyi xel moy ci buntu hadith ak ci buntu tafsir ak ci buntu tasawuf ñoom ñoom ñoo gëna bàyyi xel wax al imam ibnu Jurayj rahimahullahu ta'ala mu qala akhbarani abdu mudina ibnu gisoon nañ ko tamit al-Makki mu an abil Minhal te moom moy Abdurrahman ibn Mut'im ibn Abdullah al-Bunani abul minhaal nekk dàqantalam rahimahullahu taala moom mu nekk waa Kufa mu nekk waa Makka euh, comme ni nga xamante ne euh, noonu lañ ko gise woon tamit ne al-imam ibnu Makka la woon euh, rahimahullahu taala ki nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne moom mooy Amr ibnu itam waa Makka la woon rahimahullahu taala abul minhaal tamit waa Makka la waaye tamit ginnaaw ga nekk na maanaam nekk na tamit waa Kufa rahimahullah bu bokk ci ñetteelu tabaqa bi euh, génn àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta waaye bariwutoon ay xadiis yi nga xam ne moom la solo mu ne mu ne qaala mu ne kuntu nekkoon naa attajiru doon yaxantu maanaam di def di jaay ak jënd di commercer. Euh, fi sarfi ci euh, li nga xam ne moom mooy njaayu sarf maanaam bu boobaa sarf moom mooy njaay bi nga xamante ne dañ koy jaayee ci or ak or wala xaalis ak xaalis loolu noonu euh, dañ koy wax maanaam wala boog maanaam or ak xaalis comme niñ ko gisee woon ne Maliki rahmatullah alayhi ñoom muraaqala ak sarf dañ koo teqale bu fekkente ne sarf la moom mooy tey bu ma jëlee or di ko jëndee xaalis wala ma jël xaalis di ko jëndee or wala loo xamante ne dafa am valeur or ma di ko jëndee oo ma di ko jëndee ma di ko jëndee xaalis wala yu mel noonu loolu la wala or wala boog lu am valeur boobu ma di ko jëndee beneen comme masalan may jëndee dollar ma di ko échange di ko def ay euro wala boog may jël ay dollar di ko def ay CFA wala boog ma jël ay euro di ko def ay CFA loolu noonu moom mooy sarf euh, loolu nag ni nga xamante ne noonu lay demee ñaare moom mooy de da ngay jënd euh, or maanaam ba nga xamante ne sooy su nga xool valeur bi fu valeur bi yéegee nga dem weccee ko maanaam jaayaat ko fu bi wàccee nga dem jëndaat yeneen maanaam ak di xeet xeetu doxalin woowu maanaam nga jënd ay euro yu bëri nga teg maanaam xaar ba dollar bi wàcc nga dem nga jënd wala boog euh, nga jënd ci dollar yu bëri bëri bu ko defee nga téye ko bu dollar bi yéegee nga demaat jëndaat ci ay euro maanaam yooyu noonu mooy sarf loolu moom mooy euh, jaxa yaxantu boobu noonu naka noonu nag booba maadaama ne bu fekkente ne diggante or la xaalis mën nga koo jaayee maanaam mën nga koo jaayee mu comme tey masalaan mën ngaa jël kilo or nga daal di xool euh, xaalis lu mu ko jaral keneen ki lu ko jaral ci ay kilo ci ay xaalis mu jënd mu jëndee ko loola maanaam loolu moom ndax jaay ak jënd xeeru jaralante la naka noonu tey bu fekkente ne damaa yor sama ay euro ma daal di ko bëgg a weccee ay CFA bu boobaa tamit mën naa koo def maanaam bu boobaa damay yor say CFA yu maanaam ay euro yu bari daal di téye ku bëgg a weccee ku ma daal di la koy weccee ci njëg bu mu la ko jarale ak njëg bu mu ko jarale man. maanaam nekkul ne li nekk ci marché bi rek daa iman moom la ñëpp war a jëndee daa iman déedéet maanaam comme comme jaayee jënd bi bi ñuy def maanaam li nekk ci marché bi man mën naa yor matériel boo xam ne boo demee ci marché bi nangam lay jar mais matériel boobu man ma jaaye ko li ma neex man maanaam maa daama ne am naa client yoo xamante ne mën nañ ko sax bëgg nañ koo jëndee ci lim booba maanaam loola la waaye nag mu am benn mbir boo xamante ne ci buntu boobu mat moom mooy di jëfandikoo dooleewu maanaam ngir di noot mu nga xamante ne amuñu doole maanaam nga xam ne da leen koy jaay ngir ne ñoom amuñu pexe nga jaay leen ko ëpp li nga xamante ne euh, maanaam loo xamante ne yanuwut maanaam te loolu tegu ko ludul ci maanaam xam nga ni kii daa yàkkamti wala daf koo soxla léegi wala yu mel noonu loolu moom mooy li nga xamante ne moom bu boobaa li tax muy xaraam maanaam ci leneen la jóge bokkul ci maanaam xaraamul ngir ne euh, o maanaam euh, euro bi mooy si CFA bi daa wàcc wala yu mel noonu maanaam ci loolu ci li mu aju mooy nooteel gi ngay noot yi nga xamante ne moom amul pexe waaye tamit beneen mbir tamit am na mooy sarfa tamit dina demee nii mais mooy moo jox la fukki dërëm maanaam nga wecc ma juróom maanaam maanaam nga wecci ma ñaari juróom loolu nag bu boobaa loolu moom maanaam mënoo ma laa wecci ci loo xamante ne day ëpp doole day ëpp li nga xamante ne moom mooy ngir ne même mbir mi la bu dee maadaama ne même mbir mi la dañ koy xiyaas ci or ak or xaalis maanaam moom mooy tey bu ma yoree 1000 francs CFA comme que CFA la 1000 francs la yow bu ma la ko joxee fokk danga nga may delloo 1000 francs loolu moom mënta parce que yow da nga soxla am weccet man ma soxla yor ay billets maanaam loolu bu boobaa duñu duñu warta warta soppee comme tey bu ma yoroon ay kii 24 euh, carats ak 18 carats ci or ma yor kilo 24 carats yow bu ma la koy jaayee daa iman da nga war a jox 24 carats euh, euh, maanaam kilo wu 18 carats wu or yi même bu dee bu 24 carats bi mu doole maanaam mais kilo ak kilo la war a doon maanaam yooyu noonu ngir dafa dugg ci li ñuy tuddee asnaafu ribawiyya maanaam mooy melo yi nga xam ne maanaam mbir yi nga xamante ne riba daf ci daal di am kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci mbir mi mais nag bu bu bu monnaie bi wutee rek mën nga mën nga mën nga mën nga changer njëg gi maanaam bu monnaie bi wutee rek njëg gi mën naa mën naa fluctuer comme ni dollar léeg-léeg di yéegee ak a ak wala yéen di wàcc wala euro di wàcc selon monnaie yi ci des maanaam loolu bu boobaa loolu dana mën a ne loolu kon loolu moom la wax ne nag moom la doon def maanaam kon da doon da euh, jaay ak jënd ci li nga xamante ne moom mooy sarfu moom mooy euh, xeetu njaay ñu bari nag xam duñu ko def mm-hmm. maanaam xeetu njaay moom jël ay euro ak euh, dem wuti ji ay dollars maanaam xaar affaire bi yéeg nga dem jaay say dollars maanaam ak wala yu mel noonu loolu xeetu njaay la comme nga jënd beneen marché bi indi ko mooy loolu mooy sarfu dégg nga bu dee nag ñi nga xam xamante ne benn la mooy or ak or wala xaalis ak xaalis wala tey comme par exemple su doon ñëw nii ñu ne euro ak euro wala CFA ak CFA wala dollar ak dollar loolu Maliki yi rahmatullah alayhi ñoom murafala lañ la ñu def def teqantal waaye yeneen mazahib bi amul teqantal yëpp benn la ñoom yëpp sarf lañ koy tuddee dégg nga mu ne kon nag fa sa nee na ma daal di laaj Zayd Zayd ibn Arqam سيدنا زيد بن أرقم آه، ابن آه، زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن سالم بن كعب بن الخزرج آه، بن الحارث ابن الخزرج الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عن الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عن أبو عامر أمن ينين ذاك التلو دمينك أبو عامر أك أبو حمزة أك ينين رضي الله تعالى عنه منك ونكيها من كان صحابة ينين بلا صلى الله عليه وآله وسلم ginnaw ga mu daali dem nek ci ñi nga xamantene euh ñom ñoy wa kufa mom mi Seydina zaid ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu ci mom la suratu munafiquna waccol mom mo boole won euh Abdullah ibn Ubay ibn Salul bi nga xamantene daf ni la in akhrajna na na la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al minha al-azall moom ko waxoon ba mu ñëw wax ko waaye moom mu ñëw weddi muy joy di dem di joy yenenbi sallalahu alayhi wasallam sallam maanaam munafiquna wat dal di tàmbaleete iza jaa'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu wallahu ya'lamu anna al-munafiqina lakaadibuna ittakhadhu aymanahum junnatan ba ay ba saar ba jeex moom ci moom mii la wàccoon yenente bi alayhi wa ne ko inna allaha saddaqaka ya zayd maanaam naka buur yàlla subhaanahu wa taala dëggal na la yow na zayd ibn arqam radiyallahu taala anhu moo tax moom mii tamit am na ay riwaayaat yu bari radiyallahu taala anhu waaye fu mu njëkk a fekkee ci xare mooy xandaq mooy xasootu xandaq moom la njëkk a fekkee ci xare wu Seydina maanaam ci xare xare ak ànd ak yeneen ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye ku mel ni al imam ibnu Sa'd rahimahullah moom daf ni ghazwatul Muraysi' la moom la njëkk fekkee waaye amaan na li gën a wér moom mooy ghazwatul Khandaq la njëkk fekkee radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn ad mu ngi dëkkoon waa te Kuufa génn adduna te foofa te juróom-benn fukki at ak juróom-benn 66e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fa qaala mu ne qaala nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ñu ko laajee ci wàllu sarfu ah maanaam nee na mu ne mu ne wa haddathani imam al-Bukhari daal ne xaa maanaam mooy toxoo nañ ci boobu càllale dem nañ ci beneen càllale mu ne wa haddathani te nettali na ma al-Fadl ibn Yaqub maanaam ngi gis ne fële ak moom bi ko Abu Asim di nettali moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa nekkoon ci mbooloo mi nekk bokk ci biir taalibe yi waaye fii nag moom mook sëriñum rek ñoo nekkoon bi mu koy wax hadith bi moo tax mu daal di wax ne kon wa haddathani nettal na ma al-Fadl ibn Yaqub te moom mooy al-Fadl ibn Yaqub ibn Ibrahim ibn Musa ar-Ruhami rahimahullahu taala daakantalam nekkoon Abul Abbas al-Baghdadi rahimahullah bokk fukkeelu tabaqa bi ak benn e, muy onzième tabaqa bi la bokk e, génn e, nekk waa Baghdad génn adduna deux cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne kon du bari maanaam euh, la fekke imam al-Bukhari nag euh, rahimahullahu taala mi ngi solo ci moom juróomi yoon maanaam bii bi mu ko njëkk indi fii la imam al-Bukhari njëkk tudd euh, sëriñam bii di al-Fadl ibn Yaqub ar-Ruhami rahimahullahu taala dina ko indiwaat yeneen ñeenti yoon inchaa allahu taala naka imam Abu Dawud solo na benn xadisam imam Ibn Maaja solo na ñaari xadisam waaye ñoom rek ñoom ñoo solo ay xadisam ci waa asxaabu kutubu sitta maanaam kon imam al buxaari imam abu dawud ak imam ibn maaja nga gis ne kon bëriwul ay xadis ci kutubu sitta maanaam nga gis ne bu ñu xoolee kon ci kutubu sitta juróomi juróom-ñett xadis kese la ci am amma imaamu muslim imam at-tirmidhi ak imam an-nasa'i moom solowul xadisam rahimallahu jamii mu ne qaala xaddathana al-hajjaj ibnu muhammad te moom mooy hajjaj ibnu muhammad al-masisi Euh, al awar rahimahullahu taala daaxantam nekkoon abu muhammad mu bokk juróom-ñeenteelu tabaqa bi rahimahullah génn adduna 206e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Baghdad maanaam nga gis ne kon ñoom ñaar ñii waa Baghdad lañ maanaam ah, nga gis ne ñële ci kaw fële hadis bële waa Makka ak waa waa Basra maanaam waa Basra abu Asim an-Nabil ibn Jurayj moom mooy waa Makka maanaam ak waa Kufa manam waye nak fi mom kon ci kaw mu daal di tàmbalee ci wa Baghdad muy al-Fadl ibn Yaqub ak al-Hajjaj ibn Muhammad mu qala annahu qala qala ibn Jurayj manam kon ibn Jurayj mom muy wa makkah mu akhbarani Amr ibn Dinar ah, wa Amir ibn Mus'ab manam fi kon ñaar jilu jele ah, ah, muy Amir ibn Mus'ab ak Amr ibn Dinar Amir ibn Mus'ab tam moy ibn Amir rahimahullahu ta'ala muy muy bok ci ñettelu eh, tabaqa euh, bi euh, kon euh, moom ci waa taabi'iin yi la bokk rahimahullahu ta'ala annahumaa nekk ñoom ñaar ñi sami'a dégg nañ abal minhaal gis nañ ko léegi rahimahullah yaqulu mu ne sa'altu laaj naa al-Barra ibn Aazib wa Zayd ibn Arqam nga gis ne radiyallahu anhu maanaam nga gis ne kon ci ñaareelu riwaayam ci ñaari saxaaba la laaj mbir mi maanaam muy al-Barra ibn Aazib ak radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhuma ak sayyidina Zayd ibn Arqam radiyallahu taala anhu Barra ibn Azib moom it Ansaari la moom itam rahimahullahu taala nekk tamit Xazraji mooy al-Barra ibn Azib ibn al-Haaris ibn Adi ibn Jusham ibn Majda'a ibn Haaris ibn al-Haaris ibn al-Xazraj ibn Amr ibn Malik ibn Aws al nekkoon dégg nga muy waa Kuufa rahimahullahu taala moom waa Aws la du waa Xazraj maanaam ndax Xazraj ah mais waa waa Aws la maanaam alors que al Zayd ibn Arqam la maanaam kon ñoom ñaar ñi waaye ñoom ñëpp ansaar yi la radiyallahu anhum moom it waa Kuufa la ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum mi ngi euh, euh, kon euh, moom saxaaba la boo xamante ne ànd nag yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bisu Badar nag yenente bi daf koo jàppe woon gone moo tax waaye bisu potoon moom moom moom ànd nag yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te lulul ben du ñaar ci ay xare ànd na ko yenente bi alayhi salatu wassalam nek sahaba di doomu sahaba radiyallahu taala no ma génn àdduna 72e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci kufa Kuufa donte wax nañ ne tamit ne genn na àdduna medina neena kon bi neena na laaj naa leen ani sarf ci sarf waxu nako legi lan moy sarf ci njaay xeetu njaay la fa qaalaa maanaam gisoon nañ ñet xeetu njaay yi sarf ben la ci fa qaalaa ñoom ñu ne kunna nekkul nañ tajirina di way jaay di way yaxantu nekkoon ci commerce ala ahdi rasulillah ci jamono ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alnaa ñu laaj rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ani sarfi ci sarf maanaam di gis ne ñoom bi ñuy tontu néewuñu ko dagal na néewuñu ko daganul néewuñu ko li dañ ñun de jamono yeneen bi doon nañ ko alayhi wa alihi wa sallam te laaj nañ ko maanaam mooy dalil bi moom mooy tontu bi jëm dalil bi mooy tontu bi te loolu bëri na ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñaare buñu leen loolu la ñuy wax maanaam buñu leen laajee nangam lan mooy atte bi au la atte nangam la dañ naan la yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee maanaam fa qaala mu ne eh, in kaana in bu fekkente ne kaana nekk na yadan loxo bi ya ci ak loxo falaa bat sa loolu aayul kon loxo ak loxo mu ne in kaana waaye bu nekkee na saa ak loo xamante ne dañ koy yiirte falaa yasluhu loolu baax kon loolu moom mooy sarf condition pour mu baax foo mu nekk loxo loxo li ñu fi wax yëpp boobu ba benn condition moom mooy condition pour mu baax mooy loxo loxo maanaam mooy ci teqantal yi ñu ci jot a wax mooy ne tey bu fekkente ne damaa yor 1000 maanaam damaa yor euh, masalan 20 euros ne dama bëggoon nga wecc ma ko ma jox la ko loolu sarf la tudd day sarf la nga wecc ma ko bu dee Maalik ci rahmatullah alayhi mu dëñ ko dugal ci mu raaxala waaye bu boobaa su ma la joxee vingt euros nga war ma delloo nga jox ma ñeenti ñetti bii yu cinq euros ak benn bii wu deux a ne ma trois euros yi ci des insha allahu taala bu ci kanamee dinaa ko jox loolu riba la loolu moom la ñuy wax riba nasi'a maanaam euh, loolu mën na ne faaw loxoog loxo lay doon sarf loolu la maanaam kon loolu moom moo tax sarf tamit mooy la mbir moomu jar naa bàyyi xel lool lépp lu aju ci riba sarf ci ci ci ci ci ci bay ustaas waaw maanaam loolu moom man bu doo bay ul mutlaq dina mën a nekk parce que daynu la maanaam loolu euh, euh, loolu euh, bay ul dayni bil ayni la loolu mën naa ne mooy dañuy lépp loo xamante ne maanaam da nga jox après ginnaaw après ma delloo la ma jox la après nga jox ma li ma war a jox mais bu dee ci sarf la mënu ma laa jox maanaam vingt euros après yow boo demee ba ca kanam nga dellu si daal may jox yeneen euh, euh, billet cinq euros yi maanaam quatre cinq euros yi mën na ne daa war a nekk loo xamante ne loxoog loxo voilà maanaam weccet loxoog loxo la bu dee weccetu kese kese la attention voilà mais su dee dama laa jaay marchandise nga ne ma amaguma weccet bu boobaa mën naa ne maanaam ndax loolu bayul mutlaq la bokkul ak sarf voilà bu dee sarf lii lii nii moo moo moo tax mat naa bàyyi xel gis nga kon lii tamit moom mooy ne kon daan nañ ko def li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bii ci buntu bi mooy dani kunna taajiriina ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy daan nañ yàqamtu ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon ne ñoom daan nañ dem ci ci jiir ci ji ci ji jiiri ji maanaam daan jaay daan dégg nga bi kon imam al Bukhari rahimahullahu taala daf ko wéetoo moom xadis bi wëllif boole waa asxaabu kutubu sitta rahimahullahu taala maanaam te ni benn bii rek lu ko indi ci xadisu Seydina al-Barra ibn Azib ak Seydina Zayd ibn Arqam radiyallahu taala bii rek la ko indi te jeex na te xad imam al-Bukhari daf ko wéetoo wëllif boole waa asxaabu kutubu sitta rahimallahu jami' mu ne baabul xuruuji fi tijaarati wa qawlillahi ta'ala fantashiru fil ardi wabtaxu min fadlillah baabu buntul xuruuji masha Allah imam al-Bukhari rahimahullah maanaam subhaanallah ni muy lëkkalee aaya alquraan yi maanaam di ko indi benn par benn ba pare indi sew sew yi ak dégg-dégg yu am solo yi ba pare di ko tegele <coughs> di lëkkale alquraan ak sunna di wane ne benn la wuute wuñ maanaam baabul xuruuji buntu génn maanaam fi tijaarati ci wa qawlillahi wax bi buur yàlla wa taala wax maanaam su waxee wa qawlillahi maanaam mooy lan moo leeral maanaam luy firi wax bi yà buur yàlla wa taala wax mooy ne fantashiru mooy man fa idaa qudiyati salaatu mooy su julli rek fantashiru maanaam na ngeen daal di yàq eh, tasaaroo fil ardi ci suuf si wabtahu eh, te ngeen eh, wabtahu te ngeen sàkku min fadlillaahi ci ngëneelu buur yàlla subhaanahu wa taala ah, te ngëneelu buur yàlla googu moom commerce bi la tuddee ngëneelu yàlla maanaam nga gis ni commerce bokk na ci eh, ngëneel yi mooy fu ko bëri fu ko alquran di tuddee maanaam fadlullahi la koy tuddee ngëneelu yàlla la koy tuddee te loolu rek doy na ngir commerce am am am maanaam ngir ne borom bi da ko tuddee ngëneelu yàlla te fadlullahi mooy kan كان هو فضل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد الفاضل الفضل فضل الله صلى الله عليه وسلم bu fekente ne manam mom ak commerce dañu bokku tout manam benn ci turu mi dañ ko jël dox قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا فضل الله اك رحمه الله يرد بي sallallahu alayhi wa sallam mais ànd ak loolu yëpp mu jël baat boobu de askanale ko commerce maanaam jaay ak jënd joxam maanaam loolu yëpp day tegtale ngëneel bi nga moom la ci nekk kon mu nekk loo xamante ne euh, maanaam muy wax nag ne loolu bu aaye boobu di ko leeral mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaab ilayhi haddasanaa Muhammad ibn Salaam te moom mooy al-Bikandi daa gisoon nañ ko rahimahullahu mu ne qaala أخرجنا مخلد بن يزيد من مخلد بن يزيد القرشي الجزري رحمه الله تعالى أبو يحيى مداقن تلم أم نينين داقن تلم دمينك أبو الجيش أبو الحسن رحمه الله بوقت جروم ينتهي طبقة به من جن أدنى 193 أنا جنو قد ينتهي صلى الله عليه وآله وسلم Euh, moom nag euh, xadisam yi waa asxaabu kutubu sitta solo nañ ba mu des imaam at-Tirmidhi maam moom imaam at-Tirmidhi solowul solowul solowul xadisam mun a qaala axraja axbarana ibnu Jurayj gis nañ ko léegi mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz mun a qaala axbarani Ataa muy ibnu Abi Rabaah muy Ataa ibn Aslam al-Qurashi rahimahullahu taala nekk imam bu mag boobu Abu Muhammad dekk daqantanam al-Fihri euh, muy muy bokk ci ñetteelu tabaqa bi nekk ci taabi'i yu mag yi nga xamante ne foo dem ci mboolem xam-xam yi lu ci bëri en tout cas yi nga xam ne ñooy ponkal yi dañ ko ci bàyyi xel lu demee nekk kenn tasawuf lu demee nekk ci fiqh lu demee nekk ci hadith ak tafsir yooyu yëpp ay imam la ci imam a boo xamante ne kenn a euh, xëccoo ak moom moo tax ci a xaj yi a a a ta'ala anhu dañ doon wax ne a kenn a a dul Ataa a a Rabah rahimahullahu ta'ala mu nekk taalibi sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma maanaam te euh, Ataa Sufyan ibn Abi Rabah maanaam comme xadis boo xamante ne moom Abu Hanifa daf ko jëlee ci Ata ibn Abi Rabah moom mu jëlee ko ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum boobu gënuta tuuti Malik an Nafi an ibn Umar radiyallahu anhum déedéet moo tax bokk na ci euh, càllale yi gën a dëgër càllale boobu nga xamante ne moom mooy mooy càllale yu bu bu màgg boobu rax moom Ata ibn Abi Rabah kon waa Makka la Ah, mi ngi gën a àdduna vingt septième année génn àdduna cent quatorze jàpp cent dix septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi ah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, bi muy génn àdduna kon maanaam nga gis ne li ko li ko dese woon téeméeri at bariwutoon bariwutoon rahimahullahu ta'ala ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Ubayd ibn Umayr موي عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي الجندعي رحمه الله تعالى أبو عاصم موي داكنتلم مو بوك تي تابعي يو مكي بوك تي نياريلو رحمه الله جن ادنا سانتيتم انا جيناو غدا يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم ممتد حديث من كتب الستة ان ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه موي سيدنا عبد الله بن قيس بن سليم الاشعري التميمي moom euh, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bi saxaaba bu mag boobu nga xamante ne moo ñoom ñoo jóge woon Yemen ñëw dugg ci l'islam ci karamu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, yeneen moom nag mi ngi nekkoon Basra ak waa Kufa maanaam foofu la nekkoon ca ginnaaw ga euh, radiyallahu ta'ala anhu mu mu ñëw kon ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci juróom-ñaareelu at bi mu bokk ci ñi nga xamante ne moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni abu musa mizmaran min mazamiri ali daawuda moom te dañ koo jox benn ci riit yi riit yi yi eh, eh, eh, alayhi salaatu wassalaam maanaam ngir baat bu neex bi nga xamante ne moom la amewoon ci jamono yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam yilifoon ak adna Eh, ci jamono ñi nga xam ne ñoom ñooy xulafaa u radiyallahu taala anhum yi yilifoon na Kufa ak Basra ci rawatina ci jamono Seydina Omar radiyallahu taala anhu ñu borom jar maanaam ñi nga xamante ne eh, eh, maanaam moom mu bokk ci maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo tese yéen bi saa xam ñoom juge bi ñu ñëwee bi mu yegg si mooy fekk jamono ji nga xam ne ci la ñi juge woon Xabasa doog a yegg si ñu jëkkoon a ci Xabasa ca gàddaay ga daal di ñëw moom mii radiyallahu taala anhu yenente bi maanaam mu nekk koo xamante euh, dafa euh, mokkal lu bari jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina Abubakar ak ak sayyidina Muaz ibn Jabal ak taala anhu bokk ci borom ngëneel yu mag yi ak borom jàllale yu euh, kawe moom ci loxom ci lañu ubbee dëkk maam ne Asbahan ak Tustar ak yeneen dëkk yu mel ni ñoom moom day radiyallahu ta'ala anhu mu comme ni imam az-Zahabi wax ne amul ci saxaaba yi radiyallahu anhu ku ko gënoon a neex baat maanaam ku ko gënoon a neex baat ci jàng alquran amu ci woon radiyallahu ta'ala anhu loolu moo tax imam ash-Sha'bi doon wax naan xuzu xuzul ilma an sitta maanaam jël leen xam-xam jëlee ko ci ñett waaye mu tudd wala ko maanaam mu boole wala ko ci ah. maanaam kon moom radiyallahu ta'ala sayyidina abu musa al ash'ari radiyallahu anhu am ci maanaam 163 xadis moom lañ ko solol ci musnad Baqi ibn Makhlad li nga xam ne moom imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci 49 xadis ci xadis sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu imam al-Bukhari wéetoo ci ñeenti xadis imam Muslim wéetoo ci fukki xadis ak juróom ci xadis sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn adduna 53e année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ay xadisam comme ni ñu ko xamee nekk ci kutubu sitta mu ne istazana maanaam laaj na ndigal ala Umar ibn al-Khattab ci Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu di ñaareel xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye falam yu'zan waaye joxul ndigal la foo ñeel ko maanaam dafa ñëw asalaamaaleykum wala boog mu fëgg. Ah, waaye Seydina Omar radiyallahu anhu jox ko ndigal waaye ka annahu mu mel ne noonu kaana nekkoon na mashghulan bi aji soxla woo maanaam nekkoon ci ay soxla fa raja'a mu daal di dellu nag Abu Musa Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu daal di dellu maanaam lool dañ ci xam ne maanaam booy dem fenn da ngay yëglu maanaam da ngay fëgg wala nga ah, nuyoo waa waaye nag maanaam doo ñëw rek ah, daa dugg ci biir kër gi wala dugg ci néeg bi wala kat yooyu noonu maanaam loolu bu demee noonu faaw wala déet maanaam bañ Euh, léegi sax moom lu ci ëpp ci suñu kër yi moom maanaam lool sax amul ak tànnéef da amul maanaam faaw da def kot wala nga bës bouton maanaam wala yu mel noonu maanaam faaw nga euh, wala nga nga sone maanaam yooyu daal faaw da am waaye maanaam bu ci loolu amuloo nit loolu la war a def dégg nga euh, moom mu daal kon moom daal di dellu fa faraga mu daal di féex mu noppi maanaam mu baat pare Omar Seydina Omar radiyallahu anhu fa qaala mu ne alam asma xanaa déggu ma woon sawta abdullah ibn qaysin xanaa déggu ma woon kàddu sayyidna abdullah ibn qaysin radiyallahu ta'ala anhu moom mooy sayyidna abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu izunu izanu lahu jox leen ko ndigal maanaam léegi mën naa yegg si mën naa dugg si xiila ñu ne ko xat dëgg-dëgg raja anam dellu na de fa daahu mu daal di koy woolu wala mu daal di koy woolu maanaam kon noonu mënu ko woon a wax ne na dugg si waaye nag maanaam kon buñ la waxul nga dugg si tamit mën ngaa xaar bañ wax la nga dugg si waaye maanaam munoo rek ne de laaj naa ndigal bon kii naa comme comme que bon voilà garaaw waaw dem naa sama yoon wala boog mer naa maanaam mën ngaa dem sax ngir xëy na ne da ngaa jàpp ne bu laa bugguñu laa ubbil waaye am naa ne bon comme que gaawul bon voilà man damaa dañoo waroon a gaaw ubbil ma xeet yooyu déedéet maanaam mu ne kon nag fa xaala nee na mu ne kon naa nekkoon nañ maa bu ñu ko woowee mu ne mu ne ko kun naa nekkoon nañ nu umaru ñu ñuy digal bi zalika ci lii hmm. moo lii dalil la buy wane ne saxaaba yi radiyallahu anhum suñu waxee ne umir naa wala nuyi naa dañ ñoo digal nañ ñu wala tere nañ ñu moo tax ñu wax sallallahu alayhi moo leen digal moo leen tere hmm. maanaam lii dalil la ci ngir ne daf ni kun naa nu umaru bi zalik ñun de dañ digaloon lii radiyallahu ta'ala anhu fa qaala mu daal di wax ne tax tii nii ma ala zalika ci kaw loola bi bayyinati ci firnde indil ma firnde buy wane ne lii nga wax di dëgg la maanaam loolu tamit mooy ne euh, lépp loo xamante ne dañ koy wax di ko askanale alquran ak sunna laa but dañu indi ci firnde maanaam munuñu koo wax noonu rek di bàyyi noonu daal ne ah comme wax nañ ko rek baax na ah déedéet ànd ak ne xam nañ ni sahaaba yi radiyallahu anhum kulluhum adulun ñoom ñëpp ñu maandu lañ waaye terewul sayyidina mu ne fan talaqa mu daal di dem ila majlisil ansaari ci jotaayu lansaari radiyallahu anhum fa sa'alahum mu daal ne di laaj fa qaalu ñu ne ko laa yashhadu du seede laka ñeel la ala hada ci kaw loolu illa ludul asgharana ku gën a tuuti tuuti ci ñun maanaam ci gën a tuuti ci ñun moom mooy dem eh, moom moom moom mooy dem moom lañ moom moo leen di mooy laajte muy sayyidna abu abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu muy sayyidna sa'd ibn malik ibn sinan al-ansari radiyallahu ta'ala anhu gën a siiwee ci dàqantalu abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn euh, euh, moom mi ngi bokk ci saxaaba yu mag yi radiyallahu ta'ala maanaam ci mag ci bëri lu ñu solo ay xadis euh, yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom solo na 1170 xadis yoo xamante ne moom la jëlee ci yeneen bi alayhi salaatu wa salaam. imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci 43 xadis imam al-Bukhari wéetoo ci 16 xadis imam Muslim wéetoo ci 52 xadis ci xadis Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mi ngi génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na fa zahaba mu daal di dem bi mu ne ah ba sayyidina Abu Sa'id maanaam bi ñu demee waa Ansaar radiyallahu anhum maanaam tellement que masala bi daa siiwoon ci ñoom ba nga xamante ne dañ ni ko ñun ñii du ñu yónni mag ñi déedéet mag ñi daan gën a tax nekk takkoog yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet du ñu yónni ñooñu nga xam ne bu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan jiite julli ji ñoom ñoo daan ne ci rangée bu njëkk yi wala ñaari rangée yi ci sàpp yi ah déedéet lii masala la boo xamante ne normalement ñëpp maanaam siiw na loolu tamit day wane ne maanaam nit mën na laa ëpp xam-xam ba pare nga xam masala bu xamul parce que sahaaba yi radiyallahu anhum ñu ngi nii Seydina Omar moo fa ëppoon xam-xam radiyallahu anhu mooy bi mu nekkee xalifa moo ëpp xam-xam yëpp moo leen rawoon ci zahir ak ci baat radiyallahu ta'ala loolu yëpp maanaam moom masala boo xamante ne ki gën a ndaw ci wàllu ansaar radiyallahu anhu moom xam na ko moom mii xam ko moom mii xalifa bi maanaam mooy ne nit lu mu rëy rëy rëy rëy xam-xam lu mu màgg màgg màgg léeg-léeg mu rëy rëy mbir moo xamante ne léeg-léeg maanaam xam bu siiwul te simple te moom du ko bi day nekk lu moom wala mu mu jaaxle ndekete maanaam mbir la moo xam ne xattaa gone xam nañ manam lolu day am motax tax iman nit ki di jang sa su nit ki di mën di di jël ci xam-xam sa su ne moy kon nak euh te te warta am complexe wala riyu jangé ci ku mën doon ma dama ne mi ngi jël ci mom xam-xam nga mu ne fa qala umar sayyidna umar radiyallahu anhu ne fa saa mu dem mu daal ñu dem Abi Sa'id manam Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ànd ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu fa qaala Omar Seydina Omar radiyallahu anhu daan ne axaf ya ndax nëbb na ndax réer na haada lii alayya ci man min am di ci ndigalu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wala bokk ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax dara mën na ma ci réer mu ne ndax lii réer na ma ci ak lii ni mu amee solo maanaam ngir nit ñi bu ñuy seetante ni mu amee solo mu ne alhaani waaye yitteeloon na ma maanaam li tax li ma distraire ba tax xëy na lu mel ni masala bi xaw ma ko mooy as saf ko euh, mooy loxo yi ma doon dugal mooy jaay rek bil aswaaq ci jaay ca marché la la maanaam nekk bi ma daan nekk ci marché yi lu bari xëy na moo taxoon ba bis bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon jàngale lii wala boog saa yu ko daal jàngale man daan bu xëy na looloo taxoon yaani maanaam mi ngi ci nam alxuruuj génn gi mu génn ci la tijaarati dem ci yaxam waaw waaw ne Seydina Omar lii moom moo tax maanaam kon ndegete génn di génn di dem maanaam moo xam da ngaa génn sa kër dem di jaay ji wala boog nga génn dëkk dem di jaay ji yëpp mën na koo yanu maanaam yooyu yëpp dañu nekk ci biir mais xëy na léeg-léeg yi ma daan am moo tax maanaam nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa indi xadis bi ngir partie boobu voilà parti boobu rek la moo tax moo ne kon loolu mooy wane ne Seydina Omar radiyallahu anhu daan na ko def te daan na ko def ci teewaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu day lu ñu yëkkati nga kon euh, imam al-Bukhari xadis bii dina ko indi wax xadis numéro 6245 ak 7353 imam Muslim indi na ko ñeent yoon xadis numéro 2153 indi na ko tamit xadis numéro imam Abu Dawud indi na xadis numéro cinq mille cent quatre-vingt ak cinq mille cent quatre-vingt-un imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro deux mille six cent quatre-vingt-dix imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro trois mille sept cent six imaamu Maalik indi na ko xadis numéro deux mille cent soixante-six ak deux mille cent soixante-huit imam Ahmad euh, indi na ko euh, moom euh, moom imam Ahmad indi na ko juróom-ñetti yoon kon ñu gis ni xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba des imam An-Nasaa'i